abonnel bu faté bëss notification bi ngir ngay am suñu vidéo lu tax bandi lu tax bandi bandido tax lu tax ma nekk bandi damay tàggu xolu noon looloo tax ma nekk bandi lu tax ma nekk bandi lu tax lu tax ma nekk bandi lu tax ma nekk bandi lu tax lu tax ma nekk bandi lu tax ma nekk bandi lu tax lu tax ma nekk bandi da di ko ba barajo. booy temps yi booy dama am problème boo xamante ne man gëm naa ni yow mun nga ma ko régleel quoi <laughs> booy temps yi booy dama gis benn ngay ànd ak benn booy boo xamante ne fii booy di xaw ma joueuse la xaw demee noonu mais booy xale bi moo ma teree nelaw booy. ah ok booy Ndeya. mais fils booy bi gis nga jabam booy. <laughs> Ndeya sama xarit la booy. booy jab yooyu laa doon wër ci Ndakaaru mbedd bu ne taxoon naa fa. isil bi quoi ni mu. ni mu loolu daf may faj booy. mais booy kook nu may def booy ba jot ci numéro booy booy ba jot ci moom booy. Hmm, affaire de laa lay wax. Hmm. adduna am lépp football la. lay wax lu mu mën na am ci adduna football moo ko gënal. donc nag pour nga am ko loolu amul problème sama gayen la. mën naa ko teg li yow kereel sa agent nekkal agent da ngay yóbbu booy Europe. nga ni man moom booy fer rek laay def moom football rek mooy affaire am. te man football rek laa xam. yow daal la keneen sa benn agence wu ma jox ma bu la neexee dama koy woo léegi ngeen joxante rendez-vous fii ci terrain fii ci jardin public. booy ngeen toog waxtaan. fii daal lu fii yéex rek ci yow la yéexee. loolu loolu ko kay woo ko léegi booy. léegi laa koy woo fii kooku day tëj sama xarit la en nga fan nga nag ah, mooy jardin ba koñ ba. jardin public bi public waaw waaw bu fekkee am na jot. fii ak suba ñu daje foofu. léegi bu la neexee suba. jeex na xaaral ma ah, dox loolu day mooy Ndaya di sama booy su ma ko ko waxee dara ma amul problème fii ndax moom football rek la bëgg. dëgg la xam nga lu tax man nga neex ma. nga allo. fii naka mu yow yaa ngi cool foo nekk nii ok wuy ma dafa am benn agent bu ma lay booleel koo xamante ni ci football rek lay dox comprendre nga. voilà xam nga yaa ngi man doon wax naa ma da nga bëgg a dugg ci Europe bi moom nag ci yooyu lay dox gars yëpp moo leen dugal Europe bi.

ñoo taxaw ñu man ak mom te yor na xaalis wala yor na xaalis bi yeek yoy yep mën na ko gérer jeex na mu ngi non kon dess na ci yow fils nante mais wuy ma bu kenn sib nak def ci code man ak yow la de dégg ja jaajëf ok lolu jeex na tak boy suma rek man lolu dama ragal lolu man fils. fi nga dëkk ah. man déedéet. ah dëkkoo fi ok. ma jàpp di nga xam ne lépp dëgg la ma bañ fële ko bopp yéen ñàkk fay da war di dox. bande baa ngi baa ngi nii non bandi baa a nga Ousseyn sama xarit la. waaye ça fait longtemps. Ousseyn maa moom ñoo foondoo. defandoo lépp. ndeysaan dama voyagé nag bàyyi ko fii moom nag musul génn. comprendre nga xam nga wërsëg aussi yàllaa ko moom mooy xool ku ko neex rek mu jox la ko peut-être yàlla maa ko neex mu jox ma wërsëg bi ko euh, dem naa nag tour du def naa fépp parce que man agent joueur yi laa ak joueuse yi. ah bon bii boor di bee boor waaye mu ne fépp nag. lay joueur du lamb si samay loxo ku ma bëgg a jaay dama lay jaay man sama marchandise du lamb. waaw tax laa xam yow. waaw yow moo lay wan ne que nag ku am wërsëg nga yaw parce que xam nga lu tax. Mhm. dama laa jaay te gisee guñu. Oh, parce que soo xoolee man. Neymar maa ko yóbbu Montpellier. Neymar Neymar men. ah bon waaye Sadio Mané maa ko yóbbu fële euh, Lyon Lyon laa ko yóbbu. Eh, ah. Lukaku Lukaku mooy ki nekkoon Manchester te mu am doole. waaw ah, indi naa ko jaraaf. parce que xam nga ko dafa am doole. yow nag France laa lay yóbbu yow France laa lay yóbbu parce que ñoom ñoo soxla mais loolu nag bu loolu weesoo ñu defar suñu avenir ma ak yow. Mm-hmm. parce que man dama laa nopp. dégguma la attends dama laa nopp bëgg laa def sama soxna ñu defar su suñu avenir am njaboot defar daal suñu vi parce que man too da ngay commencer laal ci kasa yu cher yi. attends yéen mën ngeen yéen yéen sénégalais yen yéen yéen da ngeen di chantage rek. ma eh attends man góor du ma chantage de lan mooy sa problème fii nga ñëw damay dimbali damay jàppale te nga bëgg ma chantage lan mooy sa problème. soo bëggee pourcentage nga uti ko man du ma sa morom yaa ngi dégg boo yore sa alal nga téye ko yéen mën yéen yéen Sénégal balaa ngeen mën a dimbali ni pourcentage ko man du ma jigéen ñoonu à part aujourd'hui boo ma woowatee téléphone dinaa la ñuus ok ci nga fi waa yow xoolal maa la dàq mer nag ma wax ngay mer mais si c'est kii dafa réew yow ma wax ngay mer yow man bu ma meree man Sénégal yëngu maa la dàq mer foofu te woonu ma la ko nag mais si c'est kii dafa dof muy yuuxu nii kii xamuma. Jom kañ ngay noppi. ah kon xam nga ma eh si sa kaay laaj ma kii. waaw dañoo laaj ma la. waaw kii xamuma. dañoo laaj ma la yow Jom doo ko a fen. ah si sa nag wuy ma ah yow tamit dugg foofu. sa gémmiñ gi mënoo ca ñaf kot ta bàyyi fen. côté Jom nga yow chaque jour rek ak fen bu bees ba ngay génn yow Jom yow lan jom tay nga ne promoteur nga waxal ndang kay tasu wala da ngay yuxu mais damay tasu doo wax ndang sa wala sonalé yuxu dé ya tay nga ne promoteur nga suba nga ne agent nga ginaaw suba nga da nga France ginaaw waatee suba nga ne da nga yor ay eh, visa xool ma fi jom dama bëgg nga xool bala maa yuuxu xanal ci at mbër mi mu jàpp la wër la jàpp la ba wër la ba gis la jàpp la dóor la ba ngay bëgg a sa fan yu barki démb yi gis naa la ngay fréquenté ñooy mooy booy yi simb gaynde gis nga amuñu dañ lay ba la li ngay mais nga wax da da ngay mer yow ya, Malah maa la dàq ini de waaw yéen sama kaw notification bi ngir suñu vidéo